Euh, coow li bëri si lool ba Mara Niass sax moom nag génnoon na tontu nga xamante euh, ne ni moom mooy Cheikh Ahmed Cissé ndax xam ko man du ma la tontu parce que yow man dama laa dépassé ba pare euh, te man du ma la dépassé ba pare di ki toppaat hmm. bi ci loolu nag jigéen jigéen laay démb nag ñu ñu gis ni invité woon ki nga xamante mooy Cheikh Ahmed Cissé moom ma police mbay fële nag ca gétti gi na nag laay nag ñoom ñaar mu tàkkar naa si woon trop trop na seen diggante jàppal bàyyil bi ba Cheikh Ahmed menacé ki nga xamante ne ni moom mooy police mbay nee na ko dinaa la def nag loo xamante ne ni incha allah rabbi d'ici une semaine diñ si teg sa bët bi waaw xam nga xam nga tey ñoom. te nee te na euh, lu muy wax police mbay loolu bu bu bu fekkante ne amul moom nekkatul Cheikh Ahmed Cissé. waaw xam nga tey démb la wax nag en plein waa léegi tey. Mhm. moom moom Cheikh la day def ay ñaan. nee na sëriñ la noonu. waaw léegi sëriñ la boo xamante ne nii da ngay am ak problème nit. jaaroo feneen di ko tëkku. Ah, tey jii nii est ce que yow yaa ngi def loo xamante ni est ce que yàlla tëkkuwu la tey yooyu noonu lañ war a bàyyi. Mhm. benn côté nag damay dóor damay balaame eh, Pawlish Mbaye Pawlish Mbaye moo ci waroon a maandu. Pawlish Pawlish Mbaye moom daa waroon a maandu ci loolu. xam nga daa am yoo xamante ni da ngay seetaan da ngay dem toog ci kaw turbine bi rek bàyyi leen ci géew bi ñoom ñuy defante. yow bu sa tuur jotee nga wàcc def. ñoom it mhm. ñu seetaan la. Mhm. mais dañuy fekk kuy dem ñu ñuy dugg ci taatam. Pawlish moo waroon a bàyyi yoonam nekkul ci loolu tey lu ne euh, tey lii am na si ñu invité ba pare tamit ñoom dañuy bëgg buzz quoi xam nga tey nekk ci télé yi def sinap di wax naan diw lii diw lii di wax fii télé yi di la may buzz ngay ratatati tax xamoo li ngay def ñoom amuñu doole amuñu xam-xam duñu dara parce que yàlla moo leen moo yàlla mooy moo moo leen sàkk tey jii nii tey jii nii moom li mu naan Pawlish fii ak une semaine boo loo gis man la tey mhm. balaa suba mën yàlla mën na koo rey di wallaahi. walaay wala tey suba Pawlish leneen mën na koo dal ñu ne moom la. Mm-hmm. tey jii ni Pawlish lu ko dal fekkente daa tombé rek. waaw Pawlish lu ko mm-hmm. moom moo ko waxoon moom la. wallaahi mais yooyu yëpp rafetul. parce que tey jii nii moom Sénégal la dëkk Pawlish Sénégal la dëkk. ay mm-hmm. Sénégalais la bu fekkoon sax ci beneen réew la waroo ko def waxlu malaak sa doomi réew. nga taxaw di ngeen di ngeen di jokkalante naan kii naan ko ay loo gis man laak. fii kenn mënul dara. yala dong yàlla moo mën te nit boo da ngay def waaw nit boo nee ko doo dara mu muy rey boppam te nit du dara. nit du dara. Mm-hmm. parce que tey moom warul ñëw naan diw dama laa dama loo gis man la. mais bu ko même bu ko dara dalee sax te nekkut moom tey mën na am problème. ñëppay na moom la. waaw ñëpp a naan moom la te bu boobaa laa dina xam ni moom nit ñi dañ naan moom la te bu boobaa laa dina am problème ak yoon. danoo toog ci télé. Mm-hmm. bu fekkoon daa dem bay def sax mu mu xool ni muy defee wala mm-hmm. mu def ko ci pet boñ koo wax mais wax nga ko télé. ñëpp a Ahmed Cissé nee na. waaw nee na Pawlish li ko may sens mooy que ne euh, bi mu commencé di waxal ak Pawlish moom bëggul yàq kooku noonu euh, ci plateau bi nee na moom looloo tax mu tekki téere woon bi nee na wante moom bu fekkonte woon ni téere boobu noonu bàyyi woon na ko fa nee na euh, Pawlish dina gis luy tàkk te du fay. waaw xam nga tey la démb foofu. waaw léegi tey moom hmm. yooyu noonu yëpp mënoon na cee a egg ba gis téere tekki téere beeg hmm. tekki téere bi yooyu moom xa ko wax xam nga kenn gisu ko <laughs> nee na bug ko gay waaw moom xam ni ko wax de waaw du wax sax waxi téere da nga koy hmm. def li koy def nga gis ko ci saasi te hmm. ñooñu duñ ko def moom moo egg si ay téere ak ay li ma takk ak yooyu noonu yooyu yëpp mënoo yàlla moo mën dëgg na daa am Pawlish ku ko topp Pawlish Mbaye ku ko topp. di nga ko def lu nekk di nga ko def loo xamante ni parce que Pawlish moom noonu la mel. Mm-hmm. moom daa am ñoo xam ne nii mu mel ci lañ ko bëggee. dëgg la tey nii mu mel ci mm-hmm. tey moom Pawlish Mbaye moomu noonu bu ñëwee nga sëriñ bi ne ko euh, euh, loo ko jàmm di dal rek. ci semaine bi wax. amiin kay jamono yi yëpp. yàlla na ko dal waaw parce Mm-hmm. tey wax na loo xamante ni ci télé bi la ko wax. tey Pawlish lu ko dal mën na ni ah diw kat waxoon na. lii ak nag li a rafet. Mm-hmm. mooy ñu xam ne ñun ñëpp Sénégal la ñu ne. te it la nuy suul. bu nu amee xaalis fii lañ koy jaayee suñuy oto fii lañ koy dawalee kenn du jor oto di ko dawal ci kaw jaww ji dëgg la fii nga dawal ci suuf si fi ngay fi Ahmed Cissé di oto mhm. fi la fi la fi di dawalee otoom mhm. président Macky Sall ak ñëpp fi la ñuy seen mhm. oto ci tali yeeg yëpp dëgg la ñoo bokku mais tey bu nu bokkee réew mi tamit di reyante après day metti mm. tey ay kii nekk fii naan ko ay su def su ma la jekkook non c'est que laay euh, Cheikh sax moom man jàpp naa ne parce que moom euh, doonoon na koo xamante ne ni kenn ràññee ko woon fii parce que bi mu euh, laalee kaaru Mara Niass la ko ñu bëri sax laay commencé sax di bàyyi xel ndax Mara Niass moom boo déggee ñu naan def gis kooku yàlla moom la ko jagle ba pare laay dafa di koo xamante ne bu la waxee tey bàyyi xel ci ay wax moom Mara Niass waaw loo waxee te bàyyi xel ci ay waxam. dëgg la tôt koy moom moom tôt ou tard dina ci teg bët mais kii mooy nga xamante moom mooy Cheikh Ahmed Cissé moom bi mu la moom euh, bi mu laalee Mara Niass la commencé am am buzz. te xooloo boo ci gis-gisu nit ñi xooloo boo xoolee. parce que moom kenn ràññeewu ko woon mais mom le fait que laar na euh, Mara Niass fan yii moom moo tey buzz ci sëriñ si. xam nga xam nga moom la ñëpp di wër. waaw xam nga yooyu noonu. Mhm. tey boo xoolee kii Niass la sant. Mhm. kii sant Cissé te génnuñu. Euh, génnuñu kaw euh, Kaolack génnuñu ci famille Baye. mun leen mm-hmm. seexalul xaw ma mu xaddamanu leen. xaw ma nu leen def mais génnuñu fa. Mm-hmm. parce que boo xoolee tey sëriñ yu si bëri yu jëm côté boobu ay Cissé la ñuy sant wala Ñas. mais nag nan ruus tamit. a mm-hmm. nga xamante ni ñoom ñoo ñoo ñoom ñoom ñoo jokk côté boobu nan le ruus. xam ne li lii àdduna la lay yem. tey jii nii day toll jour boo xamante ne ni yàlla mi nit yi nga xam ne doo mënal sa bopp dara. dëgg la dañ lay jangte jangte. mais li gën a rafet mooy bu nit waxee li nga mhm. woo ko wala boo demee bay génn tamit nga wax ci moom lu rafet mhm. ni ko diwkat lii ak lii waroo ko woon wax ngeen xool nu mu nu mu rafetee ñu ko noonu mhm. mais Sénégal léegi nu mu ñaawee rek li naan ñaaw na ba noppi te day gën a ñaaw yàqante bi waaw yàqante bi sëriñ si di yàqante sax seen i biir xam nga nu mu waroon def xam nga nu mu waroon def ñoom sëriñ si ñu ñu ñu doon benn tapé seen xol bu ñu tapé ñu jéem a bokk benn liggéey boo xam ni coupe du monde bi day ñëw Sénégal. wax nga dëgg de. waaw waaye nii nii ñu ko jàppee nii laay fee wala commencé na am moom. waaw ñoom moom nii rek. wala ñu jël wala ñu jël seen seen xam-xam jël seen doole dem yóbbu ko ci àll bi ñuy bay di dunde ñoom sëriñ si parce que sëriñ yu sëriñ yu mag yi mm-hmm. noonu la ñuy def mm-hmm. dañuy am ay tool di bay di dunde ñu mm-hmm. koy dugal ci réew mi mais nekk fii ci réseaux sociaux yi bu télé ñëwee nga wax ba wër Sénégal bu beneen sëriñ jékki-jékki génn fee keneen génn fee mel ni ñoom ñoom ñoom daal place yu yàlla lan taxawee. dëgg la laay waaw kii naan ay. Pawlish loo gis man la place yàlla rek ngay loolu yëfi yàlla rek ngay wax mhm. loo gis man la mel ni yow yaay yàlla mhm. te yow sam nooyi sax balaa muy dem bay ñëwaat loolu ne yàlla la neex dëgg la de waaw tey jii nii mën ngaa xëy leneen dal nga fàtte Pawlish dëgg la laay eh, waaye ci Pawlish Mbaye nag boobu parce que moom defe naa ni euh, euh, Pawlish moom moom euh, coow da koo neex ñu wax dëgg <laughs> parce que Pawlish gisaat nañ ko encore keroog xamante ne ni moom mooy penc mi ñu suñu ay bi naataangoo ñoom ñoo fa demoon fekk fekk ko fa laay Pawlish nee na day pendre boppam laay mooy affiche bi ngay gis nii takk baatam bi wax na nag ba xolam bi sedd nee na parce que moom dafa namb Wally Ballago Seck te nee waale askan bi tamit dañ ko namm nee na parce que euh, ambiance nit ñi dañ ko gëj a dund moom moom na bi mu ko defee nag euh, daanaka Wally Seck tamit jot na message boobu noonu ba def vidéo tas na ko nee na ko ci Pawlish Mbaye jarul ngay xaru incha allah rabbi maa ngi ñëw ba Wally joxe na sax ñetti bis euh, yoo xamante ne ni bu ñëwee da koo fas yéene tëgg fii soirée pour bégal ay soppeem xam nga xam nga Pawlish Mbaye la <laughs> moo tax mu takk sagar boobu nga ni bu tëbee sagar bi morso bu xonk bi waaw morso bu xonk bi te njiitum réew bi gis moom dara lu xonk morso bu xonk moom xonk moom ko rouge kenn moomu ko ah ci drapeau Sénégal bi Sénégal parce que drapeau bi Sénégal mm-hmm. version rouge la waaw bu bëggul rouge drapeau bi rouge bi na ko dindi <laughs> te Pawlish dafa rouge waali rouge waaw léegi tey xoolal Pawlish Mbaye mm-hmm. affaire day comédien la moom moom sëriñ bi doon wax ak moom ne da koy lu moom la daa <laughs> xoolal daa war a xam ne Pawlish mii comédien la ndax Pawlish fii lañ ko laaj ni ko musique u Sénégal ba xam mi ngi baax mu ne moom bi mu duggee ci musique Sénégal la xam ne musique u Sénégal baaxul xam nga ni kii comédien la léegi nag boo ko toppee ah da koy sànq da koy sànq wala boo ko toppee sonal ay mbokkam ci nii mu mel nii mhm. Pawlish ku ko topp tamit da ngay da ngay sonn rek mhm. kii di comédien la tey jii boo fi nekkee naan ay Pawlish loo gis man laak yooyu noonu da ngay bëgg a may Pawlish buzz waaye tamit Pawlish am na buzz ba pare ba pare waali normal na mu dem noppalu parce que dafa sonn parce que dafa defoon def ay tournée waaw am na benn tournée boo xam ne sax daf ci def soog mhm. tey jii nii te signé woon na ay contrat jàmbur wallaahi normal na mu dem cerveau tranquille tamit benn instant Pawlish Pawlish waali mu noppalu parce que yow namu nga lool waaye papaam ak e, yaayam ak ay tamit namu nan kaasu ñu koy daal ambiance bi la sénégalais yi namb mais c'est vrai c'est vrai dañ ko namb c'est vrai nee na dëkk bi neexatul xam na kooku na ñibbisi wala moom day xaru mais ambiance dañ ko war a namb mais chaque jour benn couleur chaque jour benn couleur pendant des années boo ko pendant des mois waaw léegi nag waali na xaar ba affaire yi ñu gën koo namb mu ñëw ay hmm. morceau ay morceau yu mu tëgganu ngi fii soriwul dëgg la ba pare boo ko tàppee gis ko nga déglu ba keroog muy ñëw rek tey daa war a noppalu parce que tamit machine sax buy doo ba mu yàgg daa war a noppalu waxuma laa nag nit a ki noppam nit la